Euh, yow xam nga ne moos Ousmane Sonko moo fa yóbbu boppam Sweet Beauty et puis période boo xam ne couvre fa kenn sexawlu ko tàngal kenn omatu ko moo fa yóbbu boppam te la fa la mu fa doon xam nga ko yow xam nga yow journaliste nga xam nga dara ëmp la yéen ay journaliste ngeen dara ëpp leen xam ngeen hôtel boo xam ne noppalukaay la xam ngeen foo xam ne pour dem def sport la parce que y a des salles de sport yoo xam ne da nga fay dem ci njëkk ak teraanga def sa sport taal sa oto gaare dem sa yoon ak yenn heures mais yow massage nga xam ne yow xam nga massage yi mille francs 10 mille francs boo waxaale ñu dóoral la bu baax dóoral la léegi nag ne la ah bu la neexee continuer xam nga ci dara xam naa doo ma censuré. waaw Ousmane Sonko topp bànneexam topp ba bakkanam bàyyi ñaari jeegam te loolu yàgg na ko def yow Ousmane Sonko ay euh, ay ses deuxième bureau nit ñi xam nañ ko avant affaire yi di éclater ay ñu nekk Maroc ak ñu nekk feneen ak fu muy dajeek ñoom yooyu yëpp xam nañ ko waaye kooku moo war a jiite Sénégal. Ah, <laughs> waaw moom loolu leex ci yoon ci mais <laughs> ci yoon non xam nga am na lu ko yàlla may parce que il a su manipuler les sénégalais et puis comme ni ma la ko waxee opposition bi dara nekkatu fi waaye donc il a l'art de parler de euh, naan xelu booy yi xam nga les le xam nga jeunes yi aussi yow xam nga 18 ans 20 ans bañ ñun bañ ci tollee xam nga ku ñëw jé jéem a jaay affaire guéré yooyu affaire Thomas Sankara yooyu xam nga gars yi topp la. yaakaar na yow yow na te fekk du yow loolu donc loolu kese la la population sénégalaise quatre euh, soixante dix pour cent pratiquement n'ont par trente cinq ans trente ans mais loolu naan seen moyen dafay yomb loolu kese la mais ku dem ba xàmme ràññee intellectuels yi magum jëm yi paa yeeg maire yi xam nga ne ñoom wóoluwuñu Ousmane Sonko te duñ fal Ousmane Sonko léegi nag xam nga ñoom fi mu ne nii jaxasoo leen waa waa Pastef parce que ya yaakaaroon nañ ne le président Macky Sall du ko def ñoom xam na ne su mboxloo bi léegi am na Ousmane Sonko mënul raw en même temps Khalifa Sall raw en même temps Karim Wade c'est ça la vérité donc Ousmane Sonko élection présidentielle yi du ñëw du jël deuxième du jël troisième te c'est un danger public Ousmane ko tey imaginez ñu demoon élection présidentielle mu jël deuxième ñun même bu ñu gañee au premier tour suñu candidat moo xam Macky Sall la moo xam keneen la même bu gañee gagné deuxième au premier tour Ousmane Sonko ci tali lay wàcc il va pas reconnaître les résultats et il avait fait la même chose en deux mille 2019 bi Idrissa Seck jëlee deuxième Ousmane Sonko ànd ak Barthélemy Diaz mii dem kër euh, euh, Idrissa Seck ne ko génnal ñu xeex mu ne leen xeexuma je suis républicain waaw léegi xalifa bu bokkul Barthélemy xam nga Barthélemy mooy nekk candidat. mais mais Barthélemy nee na moom euh, waaju jiite dafa ni Ousmane Sonko euh, euh, am na ku mu jiital Khalifa Ababacar Sall su fekkente ne mënu ko nekk rek si lay ànd ak Ousmane Sonko. Eh dama ne sax bay wéy na mbuus ndax le président Macky Sall dafa leen di amnistier mais su leen amnistier wuloon deux mille vingt deux deux mille vingt quatre Ousmane Sonko day nekk candidat Barthélemy Dias nekk candidat keneen nekk kandidaa man maa la wax loolu ay waxi kese la bart Barthélemy Diaz allait être candidat léegi Barthélemy Diaz moom moo ñuy jiite senegal ñun ñun on est réew ay ay Guy Marius Sagna ñoo xam ne tekki wuñ dara du xam nga Koungheul du sa goro yi Koungheul lañ dëkk laaj demal laaj waa Koungheul euh, Guy Marius Sagna ba léegi jabar ma nga fa ñun xam nañ kuy gii mari saaña ah xay Guy Marius Sagna Barthélemy Diaz te xam nga dañu toll foo xam ne sax juddu il faut ñu lijjanti juddu yi Koungheul Sénégal nan nga juddoo foo bokk ban askan san sa waa say waajur foo màggee foo yaroo no i faut ñu lijjanti yooyu parce que non des des bâtards qui nous dirigent duñ ko nangu loolu duñ ko nangu Sénégal fis de bâtard walla da ba ngay bâtard di ñu jiite. di taxaw suñu xef ak suñu suñu suñu suñu non non